mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jëmb dafa nekkoon journée boo xamante ne journée bu spéciale ci wàllu làmb jàmbaar production organisé wu doxoon ci diggante Franc ak Sokh mbokk yi ba arène national bi arène national ba tey suñoo gis mbooloo mi muy si làmb démb fële ci arène nationale waaye nag ñu bari ñu ngi félicité Sokh ak Franc mais xale yi ñu ci vraiment ay ndaanaan la ci làmb te xale yi duñu mobilisé xale yëpp a mobilisé ñëpp duñu mobilisé ñu félicité bu baax Fra mu am ndam ci kaw soq gars yi nag waaw ñu ci noppalu bu léegi sax noppalu ba léegi waaw ñu noppalu mais ak ah, li noppalu bu ndaw la rek waaw li di coono ci ñun waxoon nañ ko sa waay yow demoon nii rek pour remplir contrat bi. mais soxla ñoom moom. ñu si muy continué tuuti moom. dégg lu ñu wax bu ñu demoon fii ba Kaolack chaque jour daal ñu daan ko. maa ngi ah, waaw maa ngi lay maa ngi fay. noo tudd. Zou laa tudd. Zou waaw noo tudd laa mujj déglu. waaw laa mujj béykat rek. béykat laa mujj déglu quoi. bu kontaan si waa Parcelles yëpp. waa Cambérène. Grand Yoff. waaw bàyyi ñu kenn Sénégal monde bi yëpp ñu ngi béykat. seen taxawaay seen masa coono waaw sook lu mu simee ko lenn nag moo mekk wax lu mu bëri yëpp mais dama xaar ci kaw ba sonn bu mu wàcc ne ñu mën ko mu bañ ñuy wër si géew bi rek sa wax moo leen yomb ñu jëf ak jaaw yi yomb de waaw di jaajëfal na waaw yaa ngi nekk waaw maa ngi lekk maa ngi lekk maa ngi lekk maa ngi su xooxam moom moom la. maa ngi lay nuyu moom. maa ngi sant gàllankoor. taw bi ñu jógee mille maat mille maat. ah bu ma ci dara du woon. waaw. waaw. démb lan moo gën a marqué si làmb. làmb ji li mu gën a marqué mbër bi confiance moo gën a. ak daal di ko wax. galag galag galag loolu làmb yu bëri nee nañ soxla dañu ko jàpp mystiquement soxla wu ñu woon saa jàpp soxla bu ñu ci ñu ko jàppee na bàyyi bëri dañ koo jàpp mystiquement na bàyyi bëri xëy na nag yan bee disoon ci moom ñu ko disoon ci moom maanaam ñu ko piqué ñëpp bootee loolu la bu dee bëri boobu ko def soo ko moo jël ak min ñu toll la nga mu ñu dëgg moom la ñu la dundee lamb ji waaw lamb moom de moom lamb dafa dekk waat ma xëy si ma doon wax lamb instant dafa dekk waat quoi lu ko dekki waaw parce que soo ko Franc fan la jëm ak non Franc boo ñaa lañ soxla foofu tool yi wër na yàlla su amaa nekkoon si contrat amaa ban lay jëm mais instant boo ñaa lañ soxla foofu non man tuut non uma Franc man mosuma am pression si combat sama loxo si kaw wër na say naa ndax gis naa mbër muy bëree ay ay vingt combat journée di daan di daan ku ne daan di daan façon mbër bu ne kon ay soxla ñu jarul jarul si quoi soo xam nañ ko bu baax soo ko waxam moo bëri mais ñun booy passé yi xam nañu soo ko bu baax a baax xam xam xamati nañu hmm. voilà mais mais daal nekk na xam lu koy wax dafa waa champion la xam nga hmm. ay ñun ñëpp ñoo far passé te gën ñoo far ay doomu ndey lañu xam nga hmm. suñu xel day day demal ndey suñu xel day ñëwoon mooy loolu daal mais am na solo sport moo leen boole woon sport moo ñu boole woon rek jaajëf grand yow delloo xale bi ma ñëw ci yow maa ngi lay siyaar bu baax naka moom. ñu ngi sant kay waaw waaw. day wax yow am taw si. waaw day wax Fra yow. démb noo dundee lamb ji ñëw taxaw. lamb ji waaw bien ah. wax dëgg yàlla ñu ngi ko séntu yëpp suñu borom dimbali ñu ci wax. waaw yàlla na ci jàmm. démb bi Fra di génn fii di def lan ngeen gis boobu yëpp ngeen ne Fra dina am ndax. waaw ñun duñu duñu la fenn ba ba ba ñu signé contrat ñu ne combat taxaw. non bàyyi sa li ngay def parce que franc bi soq simil ko day ñëw ba ci supporters yi ne leen sax supporters yi dañoo toog état de forme soq indi xam nga lan moo def supporters yi di toog hmm. parce que moom daw na benn sport xale la waaw hmm. oh, dafa yàgg de billaahi dafa yàgg soq tamit bi ñu nag moom ba mu duré duré boobu noonu problème boobu la am fi mu toll nii ñoom Franc soog xaw a arrivé ak yooyu noonu xaar problème yëpp la war a nga mos nga mos ñi la seetaan démb ak ñi la seetaan tey du benn ah. combat bi démb bi Franc bi jéem mobilisation bi Franc indi staff bëre bi mu doon bëre moom bu ko soog daanoon lan ngeen def

wax na ko moom. am na soo ko poussé ñi nañ taxaw. démb andi nañ yu bëri ci stade bi. mais sànni ko ñaa ko ama sànni ko ñi indi soq. dañ ko doon épaulé rek pour am ndam waaye duñu ay moromu franc ci lamb booy ñaa du moromu franc. mais booy ñaa bala waaw liggéey na lu tax mu mën a bëri. Franc ñaata sorti la def Pikine yaakaar naa su ma juumul démb moo nekkoon troisième sorti. ñaata quatre. cinq ñu koy parce que li ma yàgg Pikine li nga bàyyi man da jar xam naa ne daan na ko. waaw ak limal Tyson 2 3 Bambulaan Bambulaan dëgg la Guerre Moussa Guerre fàtte na loolu yàgg nañ fa de suñu chaise lañ fa teg suñu chaise bi dañ koy jël andi ko kon adversaire u soq biir Pikine ñooñu ki soq Franc ñett ñooñu dong ñoo ci des buñ tas sax buñu ko tas lépp lamb di yàqu parce que Pikine daa bokk lamb. ñu ngi si aw ma. wala bi ñu wax ak waa parti bi nga xam ne ñu wax. waaw lay jaajëfal bu baax. ndax maa ngi jaajëfal Sokala. ñu ngi loolu di courage bi. xale la la dem développement nekkaat ci laam bu mu ñëwee suñu état de forme bu mu andi. lépp kontaan. même boo gisee waa Pikine Fest del seet ak état de forme soo ko wér. dañoo am confiance bu rëy mais war yàlla bu ñu bëri dañ gën a soxla. lan ngeen koy wax ngeen ñu yomb combat am lan la soq wala mën a travailler. yaa ngi taxaw tamit jéem a liggéey ci lu bëri comme technique gérer combat. mbër waroo ak kenn ku boo xoolee bëre bi tàmbali kuy takkal laa bi daa mel ni moom ba pare nekk lu am ci làmb ji. man bu baax a xaw a bàyyi xaw a dew rek daw rek. bëre dóor la ñu wax fa nga ñëwee jaajëfal naa bu baax a baax Aliou Aliou waaw tam noo noo dundee lamb mbégte rek mbégte kontaan démo moom ba ba mbër bi daane moom suñu coono bi yëpp dafa wàcc yëgatoo leen dara yëpp yëpp yëpp wàcc yëgatuñu dara dara dara dara da a yan woon lu diis nag non non non diisu loon diisu loon diisu loon diisu loon xam nañ mbër xam nañ mbër woon nañ leen ko ba ngeen ñëwee fii loolu lañ def stade xam nañ bu baax moo tiituñ sax dañoo doon dañoo doon asiko ba combat bi jeex. Hmm, yow yaa ngi woon ci asiko yi. maa ngi woon ci asiko dañoo asiko ba combat jeex waaye day arrêté ma ne ko taawaay asiko mbër bi dafay daan. ndeysaan am na solo ci ci biir oto bi ci biir génnal tuuti daa àndoo français. waaw ma yaa ma. te yow booy nga. Hmm. démb sa rakk bi muy bëri ba ñu ngi waaw. ah ñu sant yàlla bu baax di nuyu waaw ban moment tiit ba ni tay moom tiit naa ndax sama deret mooy bi yoon

Pape Ndoye général Malika samp na leen. yooyu sax fan ngeen bëgg adversaire potentiel. moom tegoon nañ ñett ñett yi. kenn ñoom bi ñu waxtaanee. Hmm. kenn ñëw. maa lay jaajëfal. jaajëf ji. jaajëf kenn. sama waaj. noo def. ayam jàmm noo tudd. Modou Diop Modou daa mel ni yow noppaloo ko combat bi jeex na mais daa mel ni noppaloo góor gis naa ay mbuus saak ay affaire ba léegi yaa ngi koy ñu koy defee fan la jógee. combat bi fan la jógee. am ndam rek dem nañ fa loolu kase yi ñuy ñaanal rek gars yi ñuy yéene soq démb dernier moment la ñàkk combat ci wàllu mystique da ngay confirmer man combat bi gëw ni ay affaire de si mystique man dama gëm ni Franc da koo mën daan ko ëpp ko doole daan ko parce que gars yi dañuy fàtte rek gars yi Franc peut-être lu mu def si lutte simple. loolooy nëbb palmarès su lutte avec frappe am mais ñi ko xam dëgg boo xoolee premier kombaam ba démb onzième combat man bu ma parfois damay gis ay interview gars yi naan Franc mënul xeex sa affaire yooyu boo ay la may def da xool Franc combat ak ay njaga doole boobu njaga doole ngi tëx Serigne Ndiaye jara dë ñoo ñëpp mu booleen daan leen comprendre nga te boobu Franc mu ngi nekk poids léger di peser ay quatre-vingts kilo affaire yooyu xam nga ñun xam nañ ko bu baax yàgg nañ ànd ak moom depuis 2013 xam nga 29 décembre 2014 premier combat am ba léegi bu ñu fàtte fàtte xëju fanaan xale bu ndaw la. mais yow moom xanaa doo bokk ci ñi naan Pikine trois personnes yooyu ngeen fa soxla ndax ñetti ñooñu ñëpp xam nga ne duñu ay moroomu fran mais ay adversaire franc potentiel ñoo xamante ne dafa neex Eumeu seen mu ngi ci contrat euh, Ama Baldé mu ngi ci contrat. Boy Niang xëy na moo nekkul ci contrat booy Boy xam nga ni moom it mu ngi ci contrat sax diggante ma Balla Gaye 2 te xanaa Franc du toog di xaar ñooñu génn ci foofu muy doog a jël. non Franc musul xaar yow jii li chaque weekend dañuy bëkkante si làmb ji xam nga si mbappa di ñun duñu xaar kenn waaye borom siège moom moo teg siège am yor sablem yaa ngi dégg démb mu ne fa lay demee église kon ñun duñ fa jëlee siège moom moo ko fa teg dañ ko fay bàyyi. loolu kase la te démb Pikine kenn desul ñoom ménagère Pikine yëpp génn entraîneur équipe yëpp génn ñoom ñëpp xam nga ñi nga xamante ne dañuy doxal ay mbër ñoo xamante ne bokkuñ sax si cumukaay sox si yeneen cumukaay lañ leen xamee sax ñëpp a ngi si biir xam nga te ñoom am na lu ñu waxoon ñoom ëmm seen yëpp wax ne Pikine mosuñoo ñàkk bés bii ba joxe exemple si diggante booy ñaar ak kii Garga te gis nga loolu làmb du loolu làmb liggéey la soq tamit ñu koy encouragé waaw loolu kese la waaw. maa jaajëfal bu baax sama waa ji waar lépp jàmm sant yàlla bu baax alhamdulilah man la Alioune Diom waaw sama lonko la sama lépp la sama gaañ la quoi. Franc di bëre fan nga nekkee ci stade. ah boobu maa ngi woon si cumbukaay bi taxaw. zéro pression kay. sa moom boo ko xamee moom pour man doom am benn pression quoi franchement. franc bett ñu woon quoi. franc daa simmeeku soq simmeeku ñu bari gis ni poids soq bi moo ëpp poids franc bi loolu tiitalu leen. ak ah, ñun loolu daa daw suñu yaram ñun ñuy wàcc ci lit simple bi kuy dajeeg ay Serigne Ndiaye ay ponkal yu ëpp soq doole fuuf di leen jàpp di sànni fële soq daa daw sa yaram muy soq. lamb ji lii ñun bett ñu barki Serigne Bamba mosu ñoo bett wallaahi. mooy yow looy wax ni. démb gis naa Serigne Ndiaye de ñëw samp ndënd Franc ko daan mu bëggaat revanche bëgg na bëreeg soq lan ngeen wax. Serigne Ndiaye de daa xamul boppam rek moog Franc 5-0 la musul daan Franc benn yoon la daan Franc xaw ma loolu làmb Serigne Ndiaye de ko daanee ba léegi lan la defaat ci làmb quoi bay ñëw foofu di teg ay ndënd ñun ay ree daf ñoo jàpp sax maanaam làmb ji ñun. ponkal yi na ñëw bëreeg Franc Franc jamono ji ku bërewul ak moom da nga ko ragal loolooy problème yéen xam ngeen ponkal yi yéen ci làmb ngeen di dund ñun ñëpp xamante nañ ci làmb la ñuy dund duñu lim benn mbër mais làmb ku ko booleel fu mu toll nii ñu bëreeg moom pare nañ barke Serigne Bamba waaw yow. pare jaajëf